Je m'appelle euh, Babacar Thiandoum. Je suis le président de l'Association nationale des retraités civils et militaires dans les sections de Mekhe et de Tivaouane. Ah, poste bi nag retraités yi ñoom dañuy dem di fayeeku yi ndaxte bu waxtu jotee euh, ñi nga xam ñoom ñoo yore dette viagère lañ ko daan wax muy le service des pensions ñoom ñooy fay. du ministère des finance ñëpp la génnee génnandoo seen pension viré ko kenn ku nekk fan la war a jaarale ñi nga xam ne dañuy jaar à la poste nag bu yëgsee à la poste dañ koy yónnee poste war a fay mais bu retraité yi ñëw dañ xaalis amul xaalis amul mën nañoo toog ab biir ci ku nga xam ni wax dëgg yàlla yàgg ni sonn yàkkamti mën ñoo toog diir bu yàgg duñ jot seen xaalis buñ demee ba toog nag ba bëgg a dem ñu leen pour nga dem pour ñu libere la il faut nga joxe quarante cinq mille francs pour mën a clôturer sa sa sa sa sa kii il faut nga joxe quarante cinq mille francs pour nga mën a clôturer pour nga mën a clôturer sa compte te loolu wax dëgg yàlla ñun xam ñu fenn fu mu fu mu tëdd non seulement dañ leen koy exiger te tegul ci ci yoon waaye bu ñu ko fayee tamit dañuy toog ab diir bu yàgg ñu soog leen ñu soog leen jox euh, non engagement pour ñu mën a jëlee foofu seen pension yóbbu ko feneen. loolu bi moom lañu dund ak poste yàgg na wax nañ ci guddi wax nañ ci bëccëg wax nañ ci bataay mais vraiment amul benn dénouement waaw ñu ngi nii jëm ci yoolu tabaski boobu moom bu amee moom yaakaar naa di nga dégg ci lu nga xam ne kenn mosu fay dégg ndax xam naa ni ñëpp dañ jàppale fonctionnaire yi fayeeku poste daa ñëw taxaw bi dëgg poste manifester wane fa suñu naqar ba ñu xam ni lii ñu ni def ni neexuñu